network maɓɓe ko number one meda mangu gamsel network maɓɓe yahay company ko ɗiɗi network maɓɓe yahay kono africel yahata si yehi kadi sa one 111 haaliɓe be ok fado within 5 10 minutes ɓe régla fop alhamdulillah rabbil alamin afrisel nke ani ñana sana maɗen seran kullo ga ka kuñinni a kuñin nin palle africel ha hari an gana laynin ko ɓogoɗo tammi ina maaro kilol nakati kinanga nasimma kennan kennan kawo soron kawan nini ha na sunata wona mede ma wonan kawo afisel nga woni wonan kawo afisel nga wona semben kiniye woni to dina kondi oni iku ka e kanan ga nga ngeda kenya warogo umbe ko mane musaran ko nangan dega ngen ko mbokke sarahule ko nak teyelen africell line bi mu deger wa señ bi yonatu la man ma ngi tuddu Ousmane Fall kontaan bu bu baakha baax suma egge fu ne damay jox sama jabar ma ngi rendi ben ginar bi nga xamante pongolu ginar la mu won ko mbus bi ma ko wa Africell amul ñu morom ben laj bi nako yalla yok way ba ci kanam yalla ñu gañe ñu dem sam passu makka bok lañuy ñaan yalla barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam ah, mu mel comme layen bi gudda na ko la nga da nga yónnee message one two two three rek ñu baaxee la ñeenti kilo maalo te lii dina la dimbale kon ñu ngi leen a wax Ramadan Mubarak gars yi base téye leen appui seen mu dëgër waaye suñ fi jógee base nag yeneen dëkk yi nga xam ne si kaw gi ñan fa aaga kon nag ñu ngi ñëw. daal mbaaru dara. ah ah ah déedéet biir bi mooy xaw a métti tuuti nii rek di di jam nii rek. waaw kon doo dem hôpital. ah hôpital boo fa demee dañu lay jëngoog yooyu di yàq sa xol te man loolu dara jar loolu. ah waaye li ngeen wax daal yàlla sant kenn lu ah, ko gisee noonu loolu mooy Jadi eh, kan? ah, dia yalla ngatek cek lo xamni ni leer na ma ne atunu ma waji may moñu en ko mo atunu ma wani ya baga kon bayal ma xel si bi dama dem dama ko ah waaw waaw waaw waaw da ngay dem marché ci marché ma fay waaw Ini kok dia David. ah waay waay lii fuñ ko waxee ci tay yow yow la am dama am rek tiye rek ma ne ma ne dee dee dee dee moom ngay continuer rek parce que nga lekk fay ñàkk a lekk fay comme nga commencé ngay continuer rek dama jël pataat gi nga lekk waa kaa ñu yoon dégg lii mooy tax daa yendu si kër gi bés bu ne suñu ne nii rek nga ne déedéet ma ma ma ma ma sonn du ma mën a dem liggéey ndekk li nga yow xam naa sa jabar suy togg si bu fi bàyyee fa ngay dem demos. yow ñemeñ naa waat ne benn fan sax amul ak si waaw ma ne ku ko ci yëpp dina war a lekk déet déet waaw léegi déet fu mu toll nii. yow ñaari weer yu teglante ngay fay. bu am doom bi amay cët boo mën nga ba. xeej bu ndaw bi ma ma ma juum mu ne ma dinaa fay ñaari. waaye naa la nga doon dina yow juumu la hey xoolal kii soxna si juumu la fanko tey ndax partage bi fekk su la yaa jóg fi dugg si biir waañ gi juumu la fanko tey yàgg nga di ko def xam nga lu ma ñaari weer yu teglante nga war a fay dangaa war bi ba mu jeex nga teg ci beneen gi nga war ko ba mu jeex loolu la a yee teg yow yaa bon. waaw may ma may ma yow ni yow te naa leer ne nag xoolal. déedéet jëlal lekk rek te na la leer ne nag ndogu bu jotee. ma ma dégg jërëjëf la. waaw te nga ne mosul ak te na la leer ne nag bu ndogu jotee da ngay xaar ñu boole laa gune yi waaye gune yi wóorul da ngay xam ne weeru ma de. moo weeral di fan kan moo weeral di. demal demal mooy dafa tànk demal nga xam ne boo faree weeru boo weeru boo weeru ah. boo weeru sañ na nga leb dégg nga bu wër dee nga fay fan googu da ngay dem docteur sax ne ko man wér ñu bindal la kii waaye yow dara jotu la buñ dem yow yaa yow. yow waay waay yow yow li nga wax te ko fen ñaari weer a wóor. ñaari weer wóor ko borom xam-xam bu la neex ñaari weer wóor ma ko. la daaw ci imaam bi te yow sax te yow man ngaa gis fu ñu bind Fata dafa yàq ko. Ah. kon man la ko gis. ah waaw waaw xam nga luñ la wax. ah jàll pour ñu dugg si biir bi rek muy pataat muy ndox muy lekk lu mun a nekk xaj boo ko xañtu am na nooy xañtoo ci lekk gi sax jaratu nga xoor waaw sax xel nekk si bi nga fàttali fa nga woor sax dogal sa woor bi yow man ak yow yàgg nañ de Yaasin bu ko yéegee coow la de ma ne man su ko Yaasin yéegee yaa ko ko wax nëbbuwuloo yàlla di nëbbuñu